ndax alal ji lu mu bari bari mbokk yi moo xam ay milliards la moo xam ay millions la wallahi la la cay topp sa biir bàmmeel nga yóbbaale ko boo ko xaymaa ëppul 15000 francs wala sax matu mooy càngaay yeeg yin lay waajale boole la ak moom tabbal la ci pax mu xóot mu lëndëm moo xamante ne xamoo loo fay fekk la nga fay fekk mooy lan mooy la nga jëfoon rek ci àdduna loolu rek nga fay fekk kon mbokk yi bis boobu ku nekk war nga koo waajal bis boobu ku nekk war nga koo waaj kon bis boobu ku nekk war nga koo waaj rikk waaye nañu fexe ba àdduna bii nga xam ne du dara bum ñu lor bum ñu wor nu digganteeg borom bi subhaanahu wa taala mbokki jullit yi ñi ngi sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ne mooy ki nga xamante ne moo fi sax ba dakk mooy dund waaye mooy ki nga xamante ne moo am kattan yàlla moom nga xamante ne moo bind dee bind dund yàlla moom nga xamante ne moo wéet ci di fi des waaye moo bind ci ay jaamam ne dañ fiy jóge mu def àdduna mu nekk kër goo xam ne këru nattu la def àllaaxira mu nekk kër goo xam ne këru xéewal la wala këru texee di kër goo xam ne amul ab amul yamukaay di seede ne amul kenn ku nu war a jaamu di ko wéetal ca jaamu ga bañ kaa bokkaaleeg dara ku dul borom bi subhaanahu wa taala waaye yàlla moomu tim mooy ki nga xamante ne mboolem lu fi nekk lépp dafiy jóge ba mu des borom bi tabaraka wa taala ci moom la ñuy delluwaat ñun ñépp ëllëg yawmal qiyaam di seede ne amul kenn ku di seede ne muhammad jaamu yàlla la waaye ndawal yàlla la te Muhammad moomu moo gënoon a bari ci nit ñi lu muy fàttaliku lii nga xamante ne mooy dee te mooy faatu sunu yonent boobu yal nañu ko yàlla fayal te dolli koy xéewal moog waa këram ak i saxaabaam ak mboolem ku jaar ci yoon wi mu jaaroon babar saa di taxaw looloo tax sunu borom subhanahu wa taala wax ko ne ko ey yow Muhammad yow day faatu nga ñoom itam sa ginnaaw danañ faatu te ëllëg yawmal qiyaam danañu nekk di xuloo ak xëccoo ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala mbokki jullit yi ginnaaw loolu nañu fàttaliku ki nga xamante ne mooy dagg bànneexu lekk yi ak bànneexu naan yi nañu fàttaliku ki nga xamante ne mooy mabbu bànneexu nelaw yi ak bànneexu noppal yi nañu fàttaliku ki nga xamante ne mooy fàtteloo bànneexu nekkaala yin daan nekkal ca kër ga muy soxna yi ak doom yi waaye nañu fàttali ko tem ki nga xamante ne mooy dindi bànneexu alal ak bànneexu daraja ak bànneexu ak pal ak bànneexu mbooloo yi ni mbooloo yi ak mboolem ñi nga xamante ne dañ leen di topp mbokk yi nañu fàttaliku ki nga xamante ne bu ñëwee day def xale yi ñu nekk ay jirim waaye day def jigéen ñi ñu nekk ñoo xam ne dañuy tënji ay araamil lañ waaye tim nañu fàttaliku ki nga xam ne mooy teqatle xarit yi ak soppe yi ak mbooloo yi ak ki nga xamante ne mooy tiitloo xol yi ak di tuurloo ay rangooñ gët yi ak ki nga xamante ne tey moo fiy jële mboolem ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xamante ne ñoom dañoo dañoo nekk ñoo xam ne dañuy wuyo ci seen bopp ne ñoom day ay buur lañ ak ñi nga xamante ne ñoom dañoo bew waaye nañu fàttaliku ki nga xamante ne moo fiy jëlee mboolem jaami ci kaw suuf yépp ak ki nga xamante ne moom day seetee ab ziyaarekat la boo xam ne buy ñëw di la seet si du la tàggu mbokk yi kooku mooy kan mooy ki nga xamante ne moom mooy dee moo tax dee googu tey moo nekk suñu xutba boo xamante ne yan leçon lañ mën a jànge wala ay taxaw seetlu yoo xam ne mën nañ koo jële ci li nga xamante ne mooy dee googu ak dee borom xam-xam yi ak mboolem wootekat yi nga xam ne dañuy woote jëmale ci borom bi subhanahu wa taala ci taxaw seetlu yi bi ci njëkk mooy ñu xam ne dundug àdduna day ay noyyi la yoo xam ne yu nu limité la waaye tim ay wërsëg la yoo xam ne yu yàlla séddale la waaye tim ab àpp la boo xamante ne bu ñu xam la àpp la boo xamante ne am na fu mu yem moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ci alquran naan wa maa yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab sunu borom nee na amul kenn koo xamante ne danañ dolli ci sa dund wala ñuy wàññi ci sa dund lu dul ne loola yàlla ma ngi ko dëxëñ ca lawxul mahfuuz ca fa nga xamante ne yàlla moom moo ko yore moo fay soppi lu ko neex moo fay saxaltim lu ko neex yàlla di waxaat ba tey naan fa ida jaa ajaluhum laa yastaqiruuna saatan wala yastaqdimuun sunu borom nee na app boobu di dee day saa yoo xamee ne ñëw na gane si nit ki yàlla nee na duñu ko yeexe waaye tim duñu ko gaawe moom fa mu ñëwee rek foofa lay nit ki di di wujjee boroomam subhaanahu wa taala amul may ma ma def nangam amul xaaral tuuti déedéet laa yastaqiruuna laax kenn du ko yeexe waaye tim wala yastaqdimuuna waaye tim app bi nga war a faatu doo ko romb kon doo ko yeexe waaye doo ko romb kon loolu mooy benn taxaw seetlu bi ñaareelu taxaw seetlu bi mooy ne nañu xam ne àdduna kenn saxu fi àdduna kenn saxu fi loolu tax yàlla di wax ci alquran naan wa ma ja'alna li basarin min qablika alqulda afa in mitta fa humul xaalidun kullu nafsin zaiqatu almawt wa nabluukum bi sharri wal xayri fitnatan wa ilayna turjaun sunu borom nee na amul kenn koo xamante ne mbindeef nga ginnaaw bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee amul beneen bindeef boo xam ne dana fi des ki gën ci ñi yàlla sàkk mooy Seydina Muhammad ana mu tey yàlla jël na ko kon comme que kookoo fi jógee keneen mët ta wax keneen du fi des yàlla ne bépp bakkan da nga mos li nga xamante ne mooy dee bakkan bu dund rek da nga faatu yàlla ne bu boobaa nag danaa leen nattoo ay ak aw ay ak loo xam ne aw yiw la mu nekk fitna tey ëllëg da ngeen dellu siwaat ci man borom bi subhaanahu wa taala ci suratul anbiya yàlla di waxaat ba tey naan kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram mbooleem ku ne ci kaw suuf rek da nga dem da nga faatu kenn rek moo fii des muy kan muy borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xamante ne mooy borom teraanga mooy borom màgg la ñetteelu taxaw seetlu bi ci yiñ war a tiiree ci dee mooy ne amul kenn koo xam ne da nga mucc ci dee ak loo koy manti daw ak loo koy manti moytu amul ku am capacité ne da nga mucc ci dee yàlla moo wax ci alquran ne aynama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fi burujin musayyada yàlla nee na fu ngeen manti nekk dee dana leen fa fekk donte ne da ngeen a nekkoon ci kaw yi château wala da ngeen nekkoon ci kaw yi ay immeuble yu kawe kawe kawe yàlla di waxaat ba tey naan qul inna al mawta alladi tafiruuna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduuna ila aalimi alxaybi wa shahaada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun yàlla nee na yow muhammad wax leen ne leen dee googu nga xam ne ñi ngi koy daw nañ xam ne dee mi ngi daw di dajeeg ñoom te it bu dajeeg ñoom danañ leen delloo ci borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo xam kumpa moo xam lépp loo xamante ne nit ki nëbb na ko yàlla moo ko xam bu boobaa dana leen xamal la ngeen nekkoon doon ko jëf sunu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ci benn xadis mu naan ataani jibril fa qaala ya muhammad ish ma chita fa innaka mayit wa ahbib man chita fa innaka mufaariquhu wa amal ma chita fa innaka majziyun bihi yonent bi nee na jibril daf koo dikke ne ko yow muhammad dundal li la neex waaye nag na nga xam ne da ngay dee bëggal ku la neex waaye na nga xam ne da ngay teqalikoo ak moom mu ne ko defal lu la neex waaye na nga xam ne ëllëg danañ la ko fay lu jar a bàyyi xel dundal lu la neex waaye da ngay bàyyil xel da ngay dee de bëggal ku la neex bàyyil xel ne da nga teqalikoo ak moom ëllëg waaye tim defal lu la neex bàyyil xel ne ëllëg yàlla dina la ko fay ñeenteelu taxaw seetlu bi mooy mbokk yi dee buy ñëw du tàggoo day bette comme que nag buy ñëw du tàggoo day bette war nañoo waajal suñu bopp ci lu baax di ko def war nañoo waajal suñu bopp di wax lu baax war nañoo waajal suñu bopp ci xiir loo xamante ne lu baax la ndax dee buy ñëw day bette dañuy wax ne looy bañ dee fekk la ca bul ko def lépp loo xam ne da ngay bañ dee fekk la ca bul ko def ci lu bon waaye bu dee lu baax nag loolu moom alhamdulillah loola tax yàlla di wax ci alquran naan yaa ayuha nnaas ittaquu rabbakum waxshaw yawman laa yajzi walidun an waladi wala mawludun huwa jaazin an walidih an walidihi shay'a inna wacda llahi xaqun fala taxurannakum alxayatu dunya wala yaxurannakum billahi alxarur inna allah indahu cilmu saaca wa yunazzilu algaysa wa yaclamu ma fi alarxam wama tadri nafsum maada taksibu gada wama tadri nafsum bi ayi ardin tamuut inna allah xabi inna allah alimun xabir yàlla nee na ee yéen nit ñi ragal leen seen boroom muy yàlla subhanahu wa taala te ngeen ragal bis boo xamante ne wayjur du fa fay doom doomit du fa fay waajur dara fàttalikoon bis boobu bis boobu kenn ku ci nekk la lay jariñ mooy say jëf la nga doon jëf ci àdduna mu ne na ngeen xam ne li yàlla dige day lu dëggu la waay waay kon fexe leen ba bu leen àdduna wor fexe leen ba bu leen dunduk àdduna gu gàtt gi wor ba dugal leen ci leneen ci seen diggante ak yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla mooy ki nga xamante ne moo xam bis ba nga xamante ne mooy bisu penc ci la saa di taxaw yàlla moo xam heure yi muy wàccee am ndoxam yàlla moo xam li nekk ci biiru jigéen ñi yàlla moo benn bakkantim xamul suba lan lay am benn bakkantim xamul ci ban suuf lay faatoo yàlla day mooy ki nga xamante ne mooy ki dañ kumpa yàlla mooy ki nga xamante ne mooy ki xam kon loolu day wane ne kon dee buy ñëw day bette te amul kenn ku mën a yëkkati loxoom tàllal ne man day bi sàngam laay dee wala béréb sàngam laay faatoo déedéet kooku sunu boroom mooy ki nga xamante ne moom moo ko xam juróomeelu taxaw seetlu bi mbokk yi mooy ne dee day su ñëwee amul delluwaat waaye tim réccu day fekk weesu na loo tax yàlla di wax ci alquran naan xatta ida jaa ahadahum almawt qaala rabbi irjicuun laalli acmalu saalihan fi ma taraktu yàlla ne kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzaqun ila yawmi yubcasuun sunu borom nee na saa yoo xamee ne dee ñëw na am ñoo xam ne dañ naan yow sama boroom teeg maa delloo àdduna xëy na day boo ma delloo ma def jëf joo xamante ne jëf ju baax la ci la nga xamante ne moom laa fa bàyyi yàlla ne kalla lii day ab baat la boo xamante ne huwa qailuha moom rek moo ko wax teyit na xam ne seen ginnaaw dundug barzaq moo ci moo ci moo ci moo ci nekk parce que nit ki su faatoo génn na dund gu àdduna mi ngi ci dund gi nga xam ne mooy barzaq te mooy diggante àdduna ak àllaaxira ca lay nekk ba yàlla di dekkal ñi nga xamante ne ñooy jaam ñi muy dund ga nga xamante ne mooy dundug àllaaxira kon mbokki jullit yi yooyu di ay taxaw ay seetlu yoo xam ne mën nañ koo jële ci li nga xamante ne moom mooy faatu mbokki jullit yi ñu xam ne dee gi nga xamante ne mooy faatug borom xam-xam yi ak wootekat yi nga xamante ne dañuy woote ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala bokk na ci métit yi gën a màgg ci umma bi ci xeet wi ndax ñi ngi jële ci benn xadis boo xam ne abdullah ibnu amr ibnu aas moo koy nettali mu ne dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan inna allaha la yaqbidu alilma intizaan yantazicuhu min alibad walakin yaqbidu alilma bi qabdi alulama xatta ida lam yubqi caaliman ittaxada annaasu ru'uusan juhala juhaalan fa su'ilu fa aftaw bi gayri ilmin fa dallu wa adallu nee na yàlla subhaanahu wa taala du jékki-jékki rek jël xam-xam nangu ko génnee ko ci ay jaamam waaye dana ko téye xam-xam boobu ci ni nga xamante ne noonu la fiy jëlee borom xam-xam yi ba nga xamante ne benn borom xam-xam dootul desati ci kaw suuf bu ko defee bu boobaa nit ñi topp ay ñu sànku ñu réer ñu xamul dara di leen laaj ñu leen di ubbee ci li nga xamante ne du xam-xam di leen ubbee ci réer di sànkaate di sànk seen bopp waaye tim di sànkaate kon loolu day wane rek ne kon borom xam-xam yi seenug faatu ak wootekat yi ci yoonu yàlla seenug faatu day bokk na ci métit yi nga xamante ne yu gën a màgg la ci ñi nga xamante ne ñooy xeet wi ba ca topp mooy war nañoo respecté borom xam-xam yi war nañ leen a teg seen dayo ak wootekat yi war leen a ormaal war bañ di leen sànni lépp loo xamante ne day xotti seen orma waaye bañ tim di leen tuumaal waaye di rafet njort jëme ko ci ñoom ndax borom xam-xam yooyu ñooy ñi nga xamante ne ñoo fi donn yonent yi sallallahu alayhi wa sallam al ulama warasatul anbiya ya yonent bi nee na borom xam-xam yi ñoo donn yonent yi waaye donnuñu ci ñoom alal donnuñu ci ñoom diinaar waaye lan leen donn ci ñoom mooy xam-xam la ñu donn ci ñoom mu ne loolu képp koo xam ne nag jël nga ko jël nga wàll woo xamante ne wàll wu mat sëkk la kon ñooñu war nañ leen a respecté bu baax a baax a baax ñaare bi liñ ci mën a jële ci faatu borom xam-xam yi ak wootekat yi mooy ne ñu fexe ba ñi nga xam ne ñooy jàng xam-xam ñooy ndongo yi di jàng ñu góorgóorlu ci sàkku xam-xam boo xam ne bu wér la rawatina xam-xamu sharia waaye ñu gën cee xar seen tànk tubéy martaba buñ ci mën a am ci maraati bi rek ñu jéem a egg ci martaba yooyu ndax lan ndax ñu mën a nekk ñoo xamante ne ñooy wuutu ñi nga xamante ne ñooy borom xam-xam yi fi yi fi jóge tey bañ a may ñi nga xamante ne amuñu xam-xam dañoo réer di ubbee ci lu dul xam-xam di sànq seen bopp waaye tim di sànkaate ñeneen beneen bi ci mën a jëlee ci faatu borom xam-xam yi mooy ne xam-xam day al ilmu bi anna mawtul ulama wa duaat ma baqa al ilm ñu xam ne faatu borom xam-xam yi ak wootekat yi ci yoonu yàlla nañ xam ne seenug faatu day du tee xam-xam daf fay des woote jëme ci lislaam it daf fay des loolu li koy firndeel mooy ne xadis bi ñu waxoon sànq rek ne ne borom xam-xam yi ñoo fi donn ñi nga xamante ne ñooy yonent yi kon seen manhaj yoon wi nu jaaroon nekkul yoon woo xamante ne seenu yoonu bopp la waaye yoonu yonent yi rek la ñu jaaroon kon nañ xam ne woote bi ñu daan woote wékkuwul rek ci ne ay nit jóge nañ fi tey ay borom xam-xam ñu siiwoon tey woote boobu daf fiy jeex déedéet ak ñoo xam ne siiwoon nañ ci ay tur ñu ne xam-xam day nekkul ne ku siiw ci ay tur rek la déedéet kon borom xam-xam yi jóge nañ fi waaye ña nga xam ne ñoo leen war a remplacer mooy ñi nga xamante ne tey dañuy jàng xam-xam boo xamante ne xam-xam bu wér la di woote jëmale ci li nga xamante ne mooy borom bi subhanahu wa taala looloo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ci alquran naan yuriduuna li yutfiu nu an yutfiu nuur allahi bi afwaahihim wa yaba allahu illa an yutimma nuura walaw kariha alkaafiruun kon bu benn noon jàpp ne saa yi fi borom xam-xam yi jógee ba jeex takk amuñu ñu leen war a remplacer déedéet kon looloo tax ñun ndaw ñi ak yeneeni ndaw war a gën a góorgóorluwaat ci gëstu war a gën a góorgóorluwaat ci xam-xam jël xam-xam teg ko ci li nga xamante ne mooy seen kanam ngir lan ngir noonu yooyu jàpp na ñoom dañoo bëgg a fay li nga xamante ne mooy leerug yàlla ci seeni kàddu yàlla ne déedéet samag leer ñooñu mënuñu koo fay donte ne ñoom dañoo bañ dañoo lànk kon mbokki jullit yi loolu lañ mën a tiiree ci li nga xamante ne mooy faatu borom xam-xam yi ak wootekat yi ak it leçon yi ñu jëlee ci li nga xamante ne mooy faatu te mooy dee kon li ñu war mooy lan mooy ñu soppante mooy ñu bëggante ñu yéeneente jàmm góorgóorlu ci li yàlla santaane yépp ci li ñu man di ko def tere yi nag ñu bàyyi yépp loolu mooy li nga xamante ne moo ñu mën a muccal ci li nga xamante ne mooy ëllëg te xam ne fii di àdduna kër la goo xam ne kenn dëkku fi dañ fiy jóge rek loolu tax Haruna Rashid da daan toog ba yàgg mu geestu xool ay càngaayam càngaay yi nga xam ne moom lañ ko war a sànge bu faatoo daal di wiccax bopp bi daan ne maa agna an ni maaliya daan ne sama alal nekkul loo xam ne lu may jariñ la ndax alal ji lu mu bari bari mbokk yi moo xam ay milliards la moo xam ay millions la wallahi la la cay topp ci sa biir bàmmeel nga yóbbaale ko boo ko xaymaa ëppul 15000 francs wala sax matu mooy càngaay yeeg yin lay waajale boole la ak moom tabbal la ci pax mu xóot mu lëndëm moo xamante ne xamoo loo fay fekk la nga fay fekk mooy lan mooy la nga jëfoon rek ci àdduna loolu rek nga fay fekk kon mbokk yi bis boobu ku nekk war nga koo waajal bis boobu ku nekk war nga koo waajal kon rikk waaye nañu fexe ba àdduna bii nga xam ne du dara bum ñu lor bum ñu wor ci suñu digganteeg borom bi subhanahu wa taala kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp aqulu ma tasmaun واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله